Moi, am avec euh, euh, contentement si ça existe <laughs> euh, d'accueillir monsieur le ministre des mines avec délégation bi mu andal di ko dalal jàmm di ko di and ak maire yi fi nek ci Rufisque ak gox yi ñu wër and ak madame le préfet di leen wax ni Sococim société la bo xamni ni ci patrimoine réew mi la bokk ça saa yu ñu yéwo suñu Euh, mébét mooy defar ciment bu mucc ayib di ko jox sénégalais yi ba yeneen dëkk ak yeneen réew di ñu ko nawee euh, loolu mënul antu bu fekkee ni amuñu ay ressources ak ay réserves minières yu koy permettre ba pare tënku ci aussi personnel bu xarañ bu mën liggéeyam kon maa ngi gërëm personnel bi maa ngi gërëm ñi nga xam ne ñooy liggéey guddi ak bëccëg parce que usine bi 24 heures sur 24 lay daw amul taxaw donc usine la boo xam ne euh, ay nit ñu engagé xarañ nekk nit ñu ñu jàmbaar ñuy liggéey mënuma fi wax loo xam ne euh, lu weesu lu dul gërëm leen sant leen gërëm monsieur le ministre euh, wax nañ ci nag lu bëri